asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu xaq di ñaanal cheikh Mouhamadul Muntaqa sunu boroom yàggal ko fi te wéral ko ba naa lii mu naalal lislaam yépp màggale ko di ko ñaanal kilifa diine yi ak mbooleem jullit yépp di nuyu bokki dëkk bi Touba Mouride mu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara bu baax di nuyu kilifa yi dëkk bi yépp nañoo jaare nuyo bi ci al imam ak kilifa yi ñu bokkal dëkk bi di nuyu waa daaira bi jaare ku sëñ Malick mi nga xam ne moo doon jokkoog sëñ Mouhamadou Sylla booba ba léegi te mel na ni ba ñu jàppee bis dat bu yàgg woon ba yàlla boroom bi subhaanahu wa taala dogal waxtu wi si ñaan yàlla ni ñu ko tàmbalee ci bismillahi irrahmani irrahim daagale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin sunu borom gërëm lépp te nangu ko bi barakati Cheikh al di nuyu Serigne Fallou Bousso Assane mi nekk ci jataay bi moom it di kilifa di bokk ci njabootu Serigne Mbacké Bousso mi nga xam ne doy na sëkk ci xam ñàkk moroomu Cheikhul Khadim doy na sëkk ci xam kawe ak dimension bi suñu borom defal Sëñ Touba. sukk gi sëñ Mbàkke Buso sukk ci ay tànkam jaayante ak moom nekk taalibeem jaay bokk ga jaay lépp ak ki mu doon ci xam-xam ak cër bi mu am doy na rek boo bëggoon aw lay walla bëgg ab dalil ci mbirum sëñ Tuubaa bu ñu ne sëñ Mbàkke bu dey muftil balad wa imaamul muridin taalibe kii ngay laaj lu muy Cheikh Ahmadou Bamba xam ne ko nattuwaay yi ñuy nattee ki ñu war a topp ci yàlla dangay xam ne kon kii boo xamul ci moom dara yi kii tegtal la ci rek ne mooy sëriñ bu mat sëriñ bi loolu sëriñ bi doon digle wax ne na ngeen fekk aji jub ngeen ànd moom mu génne leen ci ngistal yóbbu leen ci sellal génne leen ci ak rëy yóbbu leen ci ak toroxlu suufeel sa bopp waaye it génne leen ci ak noonoo yóbbu leen ci ak laaye biire yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na kenn ci yéen ak gëmam du mat ndare li mu bëggal boppam da koy bëggal mbokkam laa yuminu ahadukum ataa yuhibbu li aqihi maa yuhibbu li nafsi ak laa yakmalu imaani ahadukum ataa yuhibbu li aqihi maa yuhibbu li nafsi kon lépp luy waral ak noonoo boo àndeek sëriñ bu mat sëriñ boo àndeek aji jub ji lay wommat la lay tàggaleek loola waaye di lay génne it ci deng dengi muy ashakku yóbbu la ci yaqiin am kóolute ju wóor ci la nga nekk waaye it dalay génn ci lépp lu amul njariñ nga xam ne doo li ñuy wax sànq sa temps sa waxtu ci ay neen waxtu wu nekk rek day nekk ngëneel ci yow nekk aw yiw sëriñ bi kon loolu la jàngale doon ca tàggat nit ña ba kenn ku ne ci ñoom tey boo ko tuddee rek mu matale melokaani biir ak melokaani biti te mag ñooñu seen càkkutéef yi ak seen bëgg lépp mooy egg ci yàlla seen bëgg mooy ngërëmul yàlla am na ku ñuy wax sëñ Ahmadou Diaw sultaanu Arifin bi mu ñëwee ci sëñ bi dana ko ñëw naa fi yow tey yow muy xutbul waraa faddu nag njaboot ya ak waa kër ya lépp ñëw ci yow na ko duma ma faale nit ñi bu fekkee ne mer nañ ci bàyyi nga ma bàyyi kër yi ñëw fi yaw bu fekkee ne yaw gërëm nga ma na ko bu la neexee ci saa wala xaaju saa ma egg ci yàlla bu la soobee waxtu la neex waaye ku gërëm laa toog gi may toog fi fi yow loola defe naa ma nga tàmbale woon ca ataytuka yaa xutbal wara mutaghayiba min al ahli wal awtaani xayraka naasiya wa lastu ubaali bil baraaya jamian ida gadibu wala in kunta radiya waaye dem na ba egg ci wax ne maa ngi sant yàlla mi nga xam ne def na ma ci darajey abdul xadim ma bokk ci góor yàlla yi kon tàggat gam gam ko doon tàggat ak suub ko ci yoonu baax nga xam ne di leen xiifloo di leen marloo di leen were kekkloo di leen sikkarloo di leen jàngaloo alxuraan di leen bindloo alxuraan tërbiye leen tërbiye googu moo leen wammat ba yóbbu leen ñu egg ci yàlla loolu sëñ Ibrahima Jóob naan fa kam muridin ilaa mawlaaka xad wasalu bi faydu nuurika yaa mawlal muridin bokk na ci it melo yooyu te jikko la sëriñ bi jikkowoo li ngay xame mag ñi sëñ Mouhamad Lamine Diop Dagare nee na naaj yi mii ma jëkkoo di nettali naar bii ma doon nettali nee na mas na maa bokk ak moom saxaar gis ko nee na bëgg a jékki-jékki rek yuuxu na naajee ngi nii naar bi doon lor sëñ bi nee na ba yàgg ma ne ba ma ko waxee jan jikko lay doon ci sëñ Tuubaa kon gis nga tedd ngay jikko yi daje ci ñoom ak melokaanu baax yi nga xam ne lamboo woon nañ ko ci biir lamboo woon nañ ko ci biti moom moomu di sëriñ bi it ci biir kàngamam yooyu mu doon tàggat di leen mooy tandikuloo jamono xam na àdduna fi mi toll sëñ Tuubaa mas naa wax ne jamono ngi ñëw ñett dana fi jële ñett ñett wuutu ko sëñ daa mas a wax ne jamono ngi ñëw ñett dana fi jële ñett ñett wuutu ko jamono ngi ñëw imaan muy gëm yàlla xaalis dana ko fi jële te ku xool adduna bi fi mu toll léegi noo amee rek baax na xàmmeetoo looy bañ ak loo dul bañ walla ngor walla nangam waaye alal moom tax na nit ki sax gëm yàlla ñu ci bari mën naa woyof moo tax mu ne imaan muy gëm yàlla xaalis dana ko fi jële islaam nag tubaab bi dana ko fi jële islaam daan na jigéen dana ko fi jële bu boobaa nag kenn duutu dégg nawetub ren na daq daaw kenn duutu gis rakk ju mag kenn duutu gis doom ju gën bàyyi kon loolu day mel ni màndarga yow yowmal xiyaam rek day mujju jamono rek lay indi ndax kon day mel ni baax taux bi day gën a wàññiku waaye safaan bi day gën a day gën a yekk te imaan muy gëm yàlla xaalis jëlee ko fi lu leer la islaam tubaab bi leer na waxtu bu nekk yaa ngi koy gis da gis koo xam ne mën na dem bay ba ñu nodd waxtu timis wala nangam ab bëree am combat am ñuy léewtoo mu ne damay bañ occasion bi raw te occasion bi yàlla ba nga koy woo xay ala sala nga ne bu occasion bi raw mu pare nga daal di tàccu yooxu siblewu ba noppi ne ma julli ji sax man ndeysaan ma julli ji sax man wala nga ne ah man sax maa ngi doon fàtte julli gi sax lii occasion bi bu ma raw ngir lool mën nga gis koo xam ne waxtu yépp mën na koo faat te du bàyyi xel ne def na loolu waaye li ngay xamee waa euh, jataay bi jataayu Cheikhul Xadim la te murid moom ku ne xam ne ne joxe moom si la san bu baax sëñ bi suba ba léegi mu ngi fi nekk di wax neen fexe indi adde joxe ngir jëmi Cheikhul Xadim bisimilah murid acca mën ngaa bañ a faale ñàkk julli gaak nangam waaye fi ne portable bu déchargé képp ak audio yu wàccut nit la ci am problème dëkk bi de moom neex na waaye sa waaye sama audio yu wàccut réseau bi baaxut nangam nangam nga xam ne temps bi nga war a jox yàlla sax da nga ko changé dugal ko feneen da nga dégg ñu ne la mag ñi daan na nafila téeméer rak moo leen nit léegi-léeg mu def ci connexion temps boo xam ne nafila ga du yàgg foofu dix heures ngay connecté ba quatre heures kon gis nga ne jëmmi tubaab bi nim ñu naxe nim mel ihsaan nag muy rafetal jigéen dana ko fi jële loolu moom gis nga àdduna bi ni mu ak ni mel caw doxiin sëriñ Tuubaa dafa waxoon Cheikh Mahmadul Bachir Mbakke sëriñ Bachiru boroom xam-xam bu rëy boobu moo Cheikh Abdul Bachir dafa wax ne sëriñ Tuubaa moo wax bis xaala li daata yow mi inna sab'a sinina li makastuha fi Congo ma daat sa yazharu yawma tubla sarair Mouhamadou Lamine dana Cheikh Maodul Bachir sama juróom-ñaari ati géej gi du réer mukk dana feeñ bis peñ ci bis ba nga xam ne lu nëbb woon dana feeñ secret yëpp génn bisub keroog sama juróom-ñaari at yi ma def ci Congo dana feeñ waaye lu tax mu ne ko ngir naxuma yàlla bi ma koy jaamu waaye yàlla naxuma bi may fay adduna da kërug pay waaye mbir ma ëllëg yowmal xiyam la waaye loolu ma ko teg ci naxuma yàlla bi ma koy jaamu waaye yàlla it naxuma bi mu may fay kon liggéey boobu faw dana feeñ muy yawma tubla sarair moo tax sëriñ bi waxaat ne kon ab murit waxtu wu nekk yitteem mooy dox jëm ci yàlla fexe ba am pas bu dëgër ba dara du la soppi am pas bu dëgër ba looy def lu mu néew néew na nekk lu baax te nekk lu tege ci sunna si yonent bi alayhi salatu ni mu ko doon dunde noonu lañ doon tàggate ñu ñam loolu ñuy nettali ki ñëwoon na ko bu yàlla wéyee yonent bi wéy mu ne ko ahmadu wéy fu yàlla nekkul rasulullahi nekku fa ahmadu du fa nekk kon yàlla ak yonent bi rek lay tegtaloo ci mbiram waxtu mu nekk ilallahi bil qurani wa sunnati allati hadat ni saraftul kula wal xalbu xasha ba noppi boole ci ëmbal ñépp aw yiw defe naa irham jamial wara doy na ci teg teleb yërmande waaye boo xooloon xasidaam gii di mat matlabu shifaay nga xam ne day day mel ni avocat la boo xam ne dafay taxaw ci kanam boromam di plaider jullit mu cël leen yërëm leen jéggal leen bu leen jàppe bakkaar yu bari buñ la moyee dañoo juum rek sàggan la waaye bokkaale wun la seen cër yi attunu balaa yi ngi leen di teg waaye xam nañ ne yow képp ya yàlla loolu mooy yaatu dënn gi nekk ci Cheikhul Xadim tam jëme ko ci ñëpp bokk na ci it warees na koo royee ci moom xam nga da nga ku naan man dama dëggal sa bopp baatu dëggal sa bopp innil xadiim wax yi su oqiim maay xaadim fu ma taxaw xàmmewul ay fit xàmmeewul ay jaasi xàmmewul lenn lu koy lor lu mën a ñëwit ma nga taxaw ci digganteeb maay kiy jaamu yàlla di liggéey rasuulaay salaahu salaam moo tax ba muy laxas ne ku ma jorte ku dul kuy liggéeyal yonent bi salaahu salaam ba mu jëli gànnaay di ko jëme ci man gàcce rek la ci mujj dal nit ñi bañ la man nag yàlla dina ma dimbale nit ñi topp ma ci géej géej jéeri ñi may borom njariñ loo xam ne aw benn lor loolu Sëñ Tuubaa doon jàngale ci àdduna moo waral boo seetloo fii ne waxtu wu ne yoon waa ngi am gan yoo xam ne boroom yi xam-xam lañ te ay seeni la jàppoon ci yoon wi ñu gise ko neneen defe naa bu yàggul ambassadeur Arabie Saoudite ñëw na ñëw na Touba bu yàggul rek ki jiite diine ji ci ci Côte d'Ivoire ñëw na lan la ad lan la adressé li ma jàppe woon la ma daan dégg jàppe woon ko yoonu murit bokkul ak nii bi ma bërki dem bis ni ki tey naa maa ngi Abidjan maa ngi Côte d'Ivoire bi ñu expliqué loolu ma ne leen am na ñooñu dañuy tay taylu mais kër ñi ñaata kër sëñ Touba moo am Abidjan moo am Côte d'Ivoire diggante Treichville rek Yamoussoukro ak ak Adjamé nangam ak nangam ak na ñaata kër sëñ Touba mais kër bu ñu nee sëñ bee koy moom mu am titre foncier nga bind ko ay mbooloo yee di daje war ngaa xam mouvement bii mbooloo mii di daje kan mooy seen kilifa ak lu leen tax di daje dañ noonu dañuy wax ne dañuy ñaaw njort ci dara ba yàgg dëgg leer ndax Sëñ Tuubaa nee na dëgg mooy dëgg du soppiku neen loola ñu demee woon ba ñu jàppoon ne dañuy xeeb yoon wi ñoo dem bay naw si yoon wi jëfi jaamu yàlla ak liggéey ak xam-xam la ko ko waral saa yoo déggee ñu ne yoon waa ngi investir fa ñuy teg mooy daaray jàng wala nangam wala nangam kon yoon wee amaat yittey nag war a bañ a war a jóge ci ëskay rek maanaam yéemu te duñ jëf mag ñi defe naa ku ci amoon milliard bariwul sagam amoon na mag mu am milliard ci mag ñi toppoon sëñ Tuba mais amul benn sànce bu sëñ bi ma sa bëgg mag ñi song ko te eggul xoolal misaal maam Cerno borom Daarul Muxti bi ko sëñ bi di walbatiloo suuf si Tuubaa nga xam ne këram yooyu sëñ bi dina ko di féete woon kaw na féete biir ñuy gas ay ngaari yu mag di wàq suuf si di maasale biñ noppee sëñ tubaat jox borom daaru ndigal na ko sengal ma kër yooyu ci jamono boobu ay 14 1914 13 di seng jafe am na ku ñëw ci borom daaru na ko sëñ Tuubaa li mu la sant da nga koo xamul waaye ay seng amul lu ko maam Cerno tontu xamoo sëñ Tuubaa xamoo ma sëñ Tuubaa lu mu bëgg dana am man Cerno lu mu ma sant danaa ko def moo ne li seng di jafe jafe ci jamono boobu borom dëru seng na kër yi ko suñ tubaa sengloo tubaa ba nopp desal junniy pont juróomi bari goy pont téeméeri junni ci xaalis ne maa ngi dellu dëru xaar ndigal waaye léegi li sëñ bi wax kenn mënu ko la ñuy wax loolu liy daq picc mooy dàq ndigal oh fu ñu koy mane nañ mbaar kër sëñ bi nga ne oh mbaar yéen de sa ordi bi képp kañ nga koy man fas nañ ko yéene ngay wax borom daaru yi daana wax ne nit ñi ni ragaleeg ñàkk bu ñu ko ragale woon yàlla dara du jeex dañuy ragaleeg ñàkk fi ñu toll nii am na benn waay boo xam ne boo dajee woon ak moom mën na la takkal ndoom ak vingt-neuf gouttes nan ko béjjën taxaw ci naaj wi di di sëpp jàlla ña ko jóg boo ko defee semaine am xaalis nga tàmbali ngank ko di di di loolu ak ñàkk niñ ko ragale bu ñu ko ragale woon yàlla ah wa man yattaqillaa yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu laa yahtasib yàlla moom moo jël engagement boo ko ragalee te dëggal rek mu teg la ci aw yoon bokk na ci melo yooyu sëñ Tuubaa tàggate woon mag ñi mag ñi dañoo nawante woon nawante googu lu mu leen jural bëggante ñun dañoo ñeente ñeente lu muy jur iñaanante diw man alxuraan diw borom xam-xamam ba diw cëram bu rëy ba diine jooju lañ daan nawante léegi nag sa waay ak otoom bag gis nga ko ba mu yor léegi sa dana nangam ak loolu ñoom dañuy ñun dañoo ñeente ñoom nag dañoo nawante ba noppi kenn ku ne ci ñoom am yitte sëñ Abdul Karim Touré ci mag yi sëñ Tuubaa yi la bokk borom cër bu rëy la Cheikh Abdul Karim doy na ci rek waxi boppam ji wax ne faalam bi anniya min qawmin machiatuhum machiatu xaaliqil metaay di diyami loolu ab cër mun ko romb gis naa ci ay mbindam mu ne sëñ Tuubaa ko wax na ko Abdul Karim sëpp na àdduna mu des tuuti li muy tuuti tuuti daa fees dell ak i nëx-nëx waaye gis naa ci nag salabul imaani qabla al mawt ak tasyaxul fujaari ila naar na ko la metti nag dama caa séen ñu ma ca foogutoon dama caa séen ñu ma ca foogutoon gëm yàlla gu rékkiku wala a'uudu billah ak lan gunge yéefari sawara yooyu laa gis ci jeexintali adduna na ko waaye nag la ma ca yéem dama caa séen ñu ma ca foogutoon kon faaw ñu waajaat joxaat yitte jëm ci liggéeyal sëriñ bi te yar ndaw ñi te jàngal leen te tàggat leen te yéenante jàmm te luwaay am mu doy la sëñ Tuubaa nee jamono soppi ko maa ngi leen dénk jekki noppi liggéey jaamu yàlla loo am mu doy la bàyyi lu bi ci loo mun njariñ ak nu ngoo liggéey Cheikh Isa Dieng sëñ Tuubaa nee na kon Isa Dieng ba amoo taalibe bu dul liggéey mu ne ko déedéet mu ne ko boo xamee amee wàcc ku dul liggéey neexuta dimbale borom dara daanaa wax ne ku dul liggéey du am dara ku mu dara du toog ku toogul du jaamu yàlla ku jaamul yàlla dem ajjana moo tax mag ñi daan toj àll yi mën a dulli seenu ñaq wu lew ba kenn du leen moom waaye lu ci waay ma sa am barki démb ñu ngi maa ngi dem ci benn dëkk ñuy nettali ci mag ñi ku ñuy wax maam mbokku maram Touré ay sàq bu guddi ma saa jot maanaam ñi mu bokkal dëkk bu seeni sàq fëggee ba sàq yi jeex day bàyyi ba guddi mu ànd ak njabootam di tibb cim sàqam di duy ci sàq ñi ci des ci guddi gi lay jóg di duy seen sàq yi ñoom ci am sàqam nga xam ne ku xëy rek fekkoon sam sàq fëggit da ngay ubbi rek fekk sam sàq fees dell te am sàqam day tibb ci guddi gi du joxe xoola jooj jikko ju rafet xoola woowu melokaan loolu nag taxoon nañu bëggante taxoon nañu nawante boo duggee ci seen biir noonu ñu daan moo lay tegtale melokaan yu mat yooyu am dogu gu rëy am yitte ju kawe mag ñi turu sëñ bi nii am na ci ñoo xam ne buñ ko masaa tudd rek luñ ñu bëgg mu ñëw ay sell ga ak dogg gaa leen may buñ masaa feeñal dara ci lu nuru baatil duñ yem ca kerse ga waaye dañuy taxawaat lu yàgg li ko jéggulu seen borom te dañ leen di geg rek ba tax loolu loola génn waaye sax doon lu luñ jublu xoola loolu may tati sëñ Fallu Cheikh Abdoul Fadal ci kilifa gu sëñ Fallu waxoon ci mën jikko ju rafet rek <coughs> sëñ Fallu dane ko teeg maa gane si kilifa googu na ko man damay ganu sën damaa bari taq-taq sëñ Fallu na ko may ëttub géej boo ñëwee lu diis diig lu na tong ci kaw bu ñëwee na ko tonet xoola jot jikko ju rafet damay ganug sët dama bari taq-taq sëñ Fallu na ko may ëttub géej boo ñëwee lu diis diig lu woyof na tong ci kaw boo duus ñëwee na ko tonet kon day daal di làmboo li ko waykat bi du xotti saatir du tas yaakaar du daw ku ko laaj ku laaj mu jox la nga géejal Fallu xan niyu la sëriñ Saaliw mii ñu mujj a gis ci doomi sëriñ Tuuba ci zahir nga xam ne juróom-ñeent fukki at ak nangam dund na ko ñaata nit la yar fukki junni ak ñaar lu ko mat ci dongay tër bi yi bàyyi na ko fi tàggat aw nit yar leen doon mag gën a yaru gën a yittewoo yàlla di taxaw di naafila di jàngal xolaan di tëdd di jàngal xolaan di sóonu di jàngal xolaan di toog yitteem jëpp di yàlla bët bu set ñu gis image kon faw nu am loon jàngate ci biir yoon wi liñ ci war a roy Cheikh mun Muntaqa mi yàlla na ko fi yàlla yàggal nim nuy jàngale pas-pas ak yitte ju kawe ak jaamu yàlla ak nungoo liggéey ak fonk xam-xam kon aw lay amut kenn ku ne day fexe ba nekk pakk buy défendre ci sa jikko ak sa melo doon koo xam ne ku la gis sa comportement nga defar ko ba mu jàkku la seen xemmeem la waaye nag bul abi yewu rek ba abiyaas bi jag te biir gi jagut da fexe ba defar sa jëmm ba ku la seen xemmeem la koo sol duutu la mën a bàyyi sama kalaas gi nag mën nañoo fexe ba fu jasineer jekke wala événement am ñu fexe ba lépp dagg ko sañse waaye ku leb duñ la fay loolu ñu la wax du wér ay dóorkat ak lijjanti dong la ñuy doon ñoo ñoo indi problème bi ci àdduna bi ndaw ñu bari bëgg a tekki bëgg a liggéey bëgg a tekki te doo sonn complexe mais nit bu waree jaay socc na jaay socc bu waree jaay kafe na jaay café yàlla lim bind ci jàmm bi yëpp suturis xaliman yasha ku yàlla ne da nga doon milliardaire bala ngaa dee doon comme ne doo am million boo du doon cent ans doo ko am kon jërul yàqante jërul ñaawalante jërul xastante ak waxante lu ku toll ci liggéey na nungoo liggéey loo am mu doy la sëñ Tuubaa ko xoon jekki noppi liggéey jaamu yàlla loo am mu doy la loo bari le bari le am ku la ëpp yàlla yëmaliwut kii daa gàtt kii njool kii xees kii ñuul kii mel ni ne kii mel ne kenn ku la mën a gën a lépp it amut fi ne ko koo dégg mu ne maa la ëpp lépp amut kenn ëpput kenn lépp koo wax ne ko maa la gën a njool mu gën laa gàtt kon yaa ko ëpp njoolaay mu ëpp la kon boo jaaroon fii ci télé bi léegi léegi jigéen romb la yor oto bu dàq loo bari bari xas da nga romb immeuble boobu moomut gis doom joo jurut gis soxna soo moom kenn ku mën a peeg lépp amul kon jërul yàqante jërul iñaanante jërul sobootante jërul taal aw ay ak bëgg histoire ak bëgg lu bon taalibe bi sëñ Tuubaa day am jom sëñ Tuubaa mag ñim tàggatoo na ngi nii kenn du yàq waaye léegi bala ngaa kontaan yàq sam nawle loo xam ci diw léegi ñaar ñu lëngoo damay wax ne ñetti nit dañuy ànd da ciy jàng bay ñibbi bu kenn ki jëkkee jàdd sawaay ba suba jàdd këram ñaar ñi tàmbali koo jow kenn ki ne sa waay ji man bëgg naa ko mais nag dafa soof sa na ne doo gis du wax ak moom pourtant bu ñu ca doon yem mais suba teel ku jëkkee yeewu ca ñaar ñee dañuy dem wëri sa waay non biig sa waay toditee ñu rag maag moom waaye nga jàdd rek mu tàmbalee ne ci yow te fekk moo ci jiitu yooyu jikko bu amee ci am réew fan la moomu réew jëm moo xam ne ku la daq saaga mooy star mooy vedette ku la daq wax lu ñaaw ndaw ñoo xam ne xamuñu fi ñuy jaar pour investir pour man cee génn mbokk yi pertement wax naa ko ba tey ndaw lu yor téléphone quatre cent mille amoon nekk seen dëkk yow nooy joué ci développement réew mi nga naan bii laa yor ak sa waay ci bii laa génn fan yi te boo wàccee dëkk ba am na ñoo xam ne seen tur dëkk sax duñ ko tudd complexe lañ mais ku nu ngu tudd sa tur dëkk xanaa boo amoon financement wala nga am lu baax doo ko yóbbu ci dëkk ba foo dëkk boole Kaolack danaa ma xam dëkk bi non man boori Thiès boori Thiès boori boori région bi la ñuy tudd nii rek lank bàyyi dëkk ba duñ ko tudd loolu amul solo nañ nañ xam fi ñuy teg suñu tànk xam fi ñuy jaar bay bay coow li ak nangami ak nangam yi ak nangam yi wóolante yërëmante bëggante mudaarante ànd ak i teggin moytu coow leeg wax ju bari jeeg jéem a jubbanti sëñ beeg sëñ bi daa waroona sëñ bi warutoon lépp ak sëñ bee murit laa waaye sëñ beeg nangam amul solo ak murit dee ko fals dee ko wax ni nga ko déggee wala nga di ko crier amul solo ku la dàq jotu la nag lu mu for sànni la ku bañ ku la wax dara moom bul judd ku judd rek ñu wax la dara koo gis am na ko mu koo gis rek koo gis rek am na koo dérange kon yàlla na yàlla boole defal ndimbal defal lu tawfiix sëñ fallu noo ngi lay jéggalu bu baax xam naa lu rëq ci waxtaan wi yaaram Mbakke noo ngi tuub di leen jéggalu bu baax kilifa yi dugg si léegi ñoo ngi leen di nuyu bu ko ñu jëggal na nun ñu jëmaat ci yeneen i béréb ndax ay bokk yu ñuy xaar seen Mor Touré jëla ngeen jëf jaajëf sama waa ji Gambie maa ngi lay jaajëfal wasalaamaaleykum wa rahmatullah